ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم كون بوك يون وي يالا تيرل wi يو دومو ادم جارتي با تي aadama موي nga xam man may kan nang ma jam nang ma wetal na nga xam ne maa la fi indi maa lay dundal maa lay rey maa lay wërsëgal cër yooyu yàlla mom soko ko xagne xañee duggé ci ben problème wala nga dugg ci ben crise ya ko tek sa bop ta mbok yi ci yi yàlla amoon ci penc mi ñu ngi koy rocci ci loxoom ndànk-ndànk di ko askane ay nit kon ñun crise bi ñu dugg na tiy jële ci inxiraafaat yi nga xam ne ñun ñoo bàyyi yoonu wi ñu waroon a jaar yàlla ne la bul naan sàngara bul lekk mëdd bul ànd ak jigéen joo takkul bàyyil carte na nga respecté sa ñaari waajur na nga respecté say dëkkandoo na ngay xëy waxtu alal ji ngay lekk da ko bàyyi xel yooyu yëpp boo ci bàyyi am na natiija boo xam ne xatmiya la waaw fal alaaqatu huna alaaqatu jadaliyatun diggante lii bu amee lii moo cee toccante ko bu lii amee lii moo cee toccante ko kon mbokk yi inxiraafaat yooyu nga xam ne moom la société bi di dund ñu koy tudde ay déviance sociétale waxtu yu moo ko dul maye ba ca njëkk moo di dofu al waasi ad diini la faiblesse de la conscience religieuse li yàlla amoon ci ñun parce que nit ki bu a yàlla gën a yàlla moo la bind moo la fi indi moo lay réglé ëllëg da nga mas a taxaw ci kanamam lépp loo mas sa def mu réglé ko mbokk yi loolu bu amee di ko dund dana am loo xam ne doo ko sañ ki nga xam ne kii gëmul yàlla lu ko neex def mën na sàngara mën na sàcc mën na rey pour am mën na ànd jigéen ju mu takkul mën na jouer carte kooku puisque diineem dafa woyof ci xolom mais ki nga xam ne diine dëgër da ci xolom amna lo xamne xam du ko sañ kon crise bi ñuy dund inhirafat yi ñuy dund cause ba ci rek mo di dooful waasa ak diini bu fekkonte ne bi diina sax na ci suñu xol ñu dund ko ni ko wara dunde ni ko sahaba yi doon dunde mak ñu bax ñi ñu am fi doon ko dunde noonu bàyyi yàlla xel ci seen dëkk ci seen con ci seen njaboot lañuy lek bu ci bu fekkonte ne bi diina nonu mo doon dunde ci xolu mak ñi ñu ngi koy dund ci suñu xol ba léegi am na ci inxiraafaat yoo xam ne du am am na yeneen yi ci topp zahiratul faqr ci la bokk zahiratu fasadil bi'a ci la bokk zahiratu ànd ay xarit yu bon yoo xam ne ci lu bon rek lañu lay poussé yooyu yëpp dafa bokk ci asbaab yi nga xam ne mbokk yi dafay indi ay inxiraafaat li ci des moo di moom Cheikh Alxaaji Thierno Seydou Nourou Tall radiallahu anhu li ci doon mawqifun Thierno wax na ko léegi mawqif bu leer la mën nee na dafa toog rek benn mbokk ne ko Thierno dama bëgg daal dama bëgg nga mu ne ko Thierno dama bëgg nga def benn laaye biir ci lay tëj incha allah benn téere bu mu tudde nasihatul ixwaan solution yi nga xam ne man yii crise yi ñuy dund ci biir réew mi solution yiñ ci mën a jële ci njàngale maam Cheikh Alhaaj Omar maam Cheikh Alhaaj Saïd Saïd Moutal dañuy dellu ci téere bu mu bind muy nasihatul ixwaan damay jàng texte bi rek incha allah mu jeex mu ne fa yaqulu afqaru l ibadi ila allah gis nga nitu yàlla yi ni mu wàcce boppam ak cër bi ko yàlla jox nee na ki gëna aajo wo yërmande yàlla ci nit ñi mooy bëgg a wax lii ñu ne kooku mooy kan mooy Saïd ibnu Muhammad an Nuur balaa muy wax mu ne maa ngi ñaanal yàlla sama bopp bu fekkente ne bi dama nekk ci ay lëndëm lëndëm yàlla dama ci yàlla génne dugal ma ci leer góor yàlla gu toll noonu mooy ñaanal lii boppam léegi nag ay xale yu ci xonk curru ngay gis seen àll wa bëttul seen dagal yàlla matul ñu jël seen bopp teel a kaalawu wax na ko ñëwul fii doonaan te mag ñu baax ñii buñ ma te tëdd duñu nelaw ndax xam nañu yàlla te xam na ne yàlla ku ko xam dëgg dëgg dëgg am na loo xam ne doo ko sañ woote mbokk yi koo gis muy woote cër booy ba nga dogu ci yàlla ne amul cër sëriñ Hadi nee na koy woote am njool naan njool maa ngi duum njool يالنا بوك فيك ديوانتي ويرسو كو تبارك الله كادي في جيب ييب امنا الصلو موضوعي في ديغ ييب امنا الصلو تدخلات في ديغ ييب امنا الصلو amna solo ci ni ko nosayit bokk fi ñew ku ne li ndokk yi waxtaan ñu mën booy dem yóbbal la ci téere jox la te loolu am na solo ci jataay lool sama ñaari minit yi ma dese mooy texte bii ma tiim daf cee am lu ma amal solo lool bi mbokk mi bind ci li sabab ci mu yàqu mi wax ca ne daa bokk ci li yàq pénc mi tadrisul awlaadi fi lmadaris alshaxsiya al ajnabiya والشعوب اللادينية وبشير شخصيات أوروبية بتاريخهم والتتبع أو التبعية wa yastahuna bi saadatihim algarbiina ila axiri an nas daf noo wan ne li sabab yëf yi mooy jël sunu doom yi dénkaane nu yaral nga ko yar bu bokk teg bi nu bëgg yaru noonu professeur Jibi Jaxate dugg na ci mooy nun ay jullit lañu waaye nag ku yar sunu doom yi ñu leen yar bu fekkee li ñoom Saïd Nuur meloon ak yi mu jaaroon xeeb nañu école yooya xeeb daara yooya bàyyi gone yu dugal leen ci yeneen daara loolu gis rek ñu moo gisalaam yi bu ëllëgee zahara al fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydi naas la mbokk mi jeexal la yax bi man kon li ma bëgg ak li ma li ma gën ci yëf yi mooy delluwaat jàngaat mag ñi gisna ci bir yakh bu mag ni wax ne bu ab tulab nare tek ci loxom bi dara ci xaalis ak yuni demé da koy gant ndax bu ëllëgee dé rus a jox yonent bi loxom bobé nga xamné daf ko talal ni tak ay dëgg bu ñu kenn xamut sama ñetti minit jeexna na yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñu poste dara wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Thierno Madani ma ngi lay ziyara di ziyara suñu sëriñ bii fi toogal xalif général Tijane sëñ Mansour ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax a baax ak ziyaara ñëpp ñu fi nekk parce que ñoom seen taalibe lañu séeréer lañu mais dañuy provoqué tey Haalpulaar yi suñ borom tabaaraka wa taala bokk na ci li mu wax ci alquraanu karim di waxam kullu shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin comportement yi nga xam ne nitu yàlla yi démb ak barki démb daanañ ko am mu ngi doon sukkandiku ci alxuraanu karim bokk na ci loolu lu ñu fi nettali léegi ci film bi suñu maam Cheikh euh, Omar Foutiyou ne dafa toog benn bés benn xale ñëw tàppate ko teg loxoom ci kawam am ay wax yu mu wax mu mu ne teg xoolaat xam ne suñ borom tabaaraka wa taala ba muy wax ak doomu aadama yi ci alquraanul karim ci suuratu yaasin wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qaal yaa qawmi atabiul mursalin foofee la sukkandiku xam ne kii du nit ordinaire yàlla suñ borom tabaraka wa taala moo ko jaarale ci moom pour mu ñëw am lu ma wax deuxième exemple bi nga xam ne royuwaay la maam alaaji malik radiallahu anhu ba mu demee aji makkatal mukaram ba pare dem medina toog fa ak diir sama xarit yàlla yàlla yokku leeram abdou aziz al amin moo ma ko nettali ne bu xëyee dem bu jullee ba pare wéet ak boromam ci alxuraanu karim di def ay ñaan ci xabru muhammad sallallahu alayhi bi ba benn bés suba teel am benn waay ñëw arab ne ko yow yaay kan mu wax mu ne ko foo jógee mu wax fi mu jógee Sénégal mu ne ko lii ngay def de baax na lool mais dellu foofee nga jóge def fa lii ngay def fii njëriñ li muy amal diine islaam a ah, xamoo sax na muy toll mu xoolaat boppam ne yàllaa ngi may may ma fàttaliku wa jaamin aqsal madinati rajulu yasa qaal donc jullit nitu yàlla comportement am dafay war a ak li nga xam ne suñ borom tabaaraka wa taala ci alquraanu karim def ñu ci jox ay tegtal ay misaal ba tax euh, beneen provocation halpulaar yi toujours dañuy wax Thierno Seydou Nourou Tall comme ba Thierno mais c'est aussi un il a fait la Mecque suñ borom tabaraka wa taala ci les cinq piliers de l'islam wa hajjil bayti liman istada ilayhi sabila mais moom yalla def ko may ni remplir condition bobu dem aji makka su ma sëriñ may wax sànq ne ah sëñ Kébé euh, El c'est Seydou Nour tout ceci pour dire que la symbolique du référentiel coranique dans les valeurs sociétales constitue la référence la plus sûre pour l'humanité. Ça, c'était ma contribution, c'est ma petite contribution de ce que le Coran doit être pour nous. Mais les Guinéens, Mboubou, euh, ministre d'État auprès du président de la République pour wax donner Salam rahmatullahi euh, sargal son excellence le président de la République Macky Sall xam Je ne tout dafa tukki tukki bu am solo ñu bisi conseil des ministres am euh, amul conseil des ministres pour Sénégal lolo tax bés bu toll bu magee nii ah, xam naa xelam yépp a ngi fii ca conseil des ministres bale muy jiite mu ne ma nag naa ñëw toogal ko fi nee nañu ah, ndaw moom ñu ngi koy xoolee ka ko yóbbu maa ngi leen di gërëm ci cër bi ngeen may may pour ma toog ci place bu bu sell bi di wax ak yéen di sakku rek ñaan président Macky Sall seen doom la seen taalibe doom la ci kër diine Sénégal yépp rawatina nag nit ku nag euh, sa xeet dafa am ci yow doole ñépp baax mais ku ne dangaa bëgg sa xeet moom xalpulaar la bëgg na ko nekk na ko bien que ci ñun ñi nga xam ne ñun ñooy daanaka euh, seeni seeni seeni seeni buur daanaka ñun ñooy seen biir ah ñun ñun ñoo leen ko téyel encadré leen ko ci seeni kaw ñaan mais ci suñu kaw taxawaay ba yàlla mi nga xam ne quli allahuma malikul mulk tuti mulk man tasha waaw ba tax na tey war ngeen di insister davantage comme ni ngeen koy defee ki nga xam ne yàlla daf ko tànn jox ko nguur diine waru ko xeex lu dul kuy xeex diine daf ko yore ba pare di xeex diine mais bu yoree diine xeexul diine waa diine buñ ko jàppale wu tam war nañu maandu ci mbiram xuli allahuma malikul mulk tuutil mulk man tashaa ku ko yore rek yàllaa la ko jox bi tax na euh, bérébu ñaanukaay yii buñ ci ñëwee ca lam ñuy wax na ngeen leen wax ñu ñaanal Sénégal ñaanal bépp sénégalais rawatina nag ñi ci yàlla may cër cëru diine wala cëru doxalinu àdduna moom anam boobu lay doxe ci kër diine yi di leen yëgal ne ah, am réew yore ko diis na metti na rawatina li tax ngeen soulever la question des valeurs la crise des valeurs do aadama li liko xaajale ak yeneen mooy jikko ya ci jikko la islam ñëw samp ba mën a tax nit ki am lu muy jomb ak bañ comme thème lu jaral lawal ci réew mi la ñu xoolaat xam les li tubaab yi daan waxe seen bopp exception culturelle Sénégal la raw exception culturelle fii nga xam ne maam yu baax yi fi juddu di def ba Sénégal nekk non seulement exception culturelle mais exception de comportement et de pratiques religieuses islamiques ah loolu lu jaratee la moo le président de la République son excellence Macky Sall

moom ci am na cër adduna te dana ko am alaaxira yal nañ ci yàlla boole maa ngi ziyaara ñëpp di balu ak ñëpp di ziyaara nag sama mbokk ashbaab yi nga xamante ne nii depuis quarante ans ñu ngi yëngatu pour suuxat pour suuxat comportement ak li nga xam ne valeur culturelle yi euh, suñu cheikh bi yore woon ci àdduna ci dundam yëpp maa ngi fàttaliku njabootam bi cheikh cheikh cheikh cheikh cheikh ahmad Euh, Cheikh Ahmad Cheikh Cheikh Cheikh Ahmad euh, ne li ngeen wax ci ne nit ku wàcce woon boppam la wallaay lu dëggu la euh, li ma doon doon taalibe séeréer bu ma daje woon ak moom fii ci grande mosquée de Dakar parce que foofa la daan jullee aljuma bu ñu fa dajewaat as tuut ma am benn ticket essence mais du ko xeebal mais allahu akbar mais xam na ne man la ma la ma yore ca la ma yaakaar ne mën naa ko woon ne yëg naa la naa la te maa ngi jox sama àq ak sama lépp yow ah, nangul na ma ko loolu itam dafa bokk ci wàcce sa bopp comme ni ñu may defee bu ma ñëwee ci mosquée omarienne julli sa ajuma fi ñu may teg xam naa ne sax ودي على بلاس بو اوبلتي طالبي سيرل مي كوم من ماي سين بور خمنا ني لي نك بريزيدان ماكي دو دوماكو كوي نتيلي مي دال سين طالبي سين خريج سين دوم بريزيدان ماكي سال مون لين دي زياره دي لين نويو دي لين واخ ني يال ني يالا واتي خيوال تي ريمي واتي كو تي ريو جوليت ييب صلاه والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu ñu lay nuyu te di dugal suñu bopp ci biir nuyu gi ñu la nuyu ndax yaa ñu yóbbaale ci nuyoo gi di nuyu mbooleem bés ngu maam Cheikh Alxaaji Umar Fuutiyu ak bés ngu awliya awliya ullahi taala nekk ci biir Sénégal ak fa dul Sénégal li ëpp solo loolu mooy diine ji ak bokk gi ak tariqa bi nga xam ni ci la maam Cheikh Alxaaji wootee ba ñëpp fekk si ko ci le mam Seydou nooru tal doon woote ànd ak Baye Thierno muntaga ba ñëpp fekk si leen ci te yàlla wane na ni rahim dëgg dëgg dëgg ba ci ëpp solo muy mbokk mooy bokku diine muy bokku diine ndax bés pénc yàlla nee na li nekkoon ci deret yëpp day kadit ba mu des bokku diine su deret amee buy continuer ba foofu tam day fekk ña ko bokk deret ja ña ko bokk doon jaamoo ndoo yàlla jébbaloo ndoo ci yàlla jël lépp jox ko yàlla te yàlla wane na ni féeg looloo ngi am te ñu seq ndono loolu teraangaam du dañ di wàcc ci suñu loxo wa laqad katabna fi zaburi min baadi zikri anna larda yarisuha ibadiya salihun kon nag yàlla daal di attirer attention bindaa fan yëpp ان في هذا لبلاغا من مانيفست بري لقوم العابدين نيال نيغا خامني دانيو جامو يالا واو واخو فلي اولي الالباب ولا لنين دوما لا يوي امنا فنن فمو خاج القران تي يالا ني نكو لقوم عابدين تي يالا دافني واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واو اك وسجد واقترب من نيو يعني في باي مو نيك كنزا لا يفنى ومقاما لا يباهى ba tax na maam Cheikh Al Hadj Umar noonu la jàngale ko àndoon ak moom boot leen takke leen mbootug leer ñu sës rëkk ci gannaawam te loolu la ñaane yàlla mbokk googu bañ a taqalikoo bañ a tasaaroo ba ba ilaa an yarisa allahu al arda wa man alayha ba ba yàlla taxañ suuf tukkal àdduna ba noppi dekkalaat nit ñi mbokk googu nag ñu ànd ci keppeeru maam Cheikh Al Hadj Omar mu boote ñu ko ñun ñëpp di suñu maam yàlla nañu ko yàlla ba mu tekki ko fenn fudul ca fir fil fil firdawsil aala ca kanamu suñu borom waaw ba yàlla dëggal fa waxam ji mu wax ci suratul bayina inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya aw xayrul baria jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min taxtiha al anhar خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني يالله ما ينقرم لول يالله نينتم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يعني يالله ما ينقرم لول سيد بابا كان من نجد جتل نيوم زيارة موك موك يباخ ينغ أمتي سحضر مام شغل حاج مالك من خمني حضرت شغل حاج عمر رضي الله عنه دي يسل موكو جي والذين لأماناتهم وعهدهم raaun ci ci awsaaful muminin ci suuratul muminun mbokk googu ak kóllëre googu ak cofeel googu ci wàllu diine ak wàllu pas-pas ak ngëm yàlla ci sharia ak sunna ba noppi ñëwati itam tariqa bi gën koo rafetal mu tariqatu abil abbas yi cheikhina tijaani radiallahu anhu réew mi itam ëmb di suñu réew ku ñu fi bokkal tariqa ku ñu bokkalul tariqa ku ñu bokkal diine ku ñu bokkalul diine citoyenneté rek déjà citoyenneté l'islam def ci def daf ci def recommandation al muwatanu al muwatanatu te yonent bi saa sallam nee na xubbul watan min al iman bokk na ci liimaan tigi tigi tigi nga fonk sa réew bëgg sa réew bëgg sa doomi réew ak sa askanu réew te ñaantalan ñaanalante ñëpp jàmm moo tax fii tey képp ku sant si wala mu sant wele wala leneen di njaboot ci maam alxaaj Omar te lëkkaloog Cheikh alxaaji Malik ci bokk googu ñëpp a fi waroon ñëw tey waaw ndax fii suñu kër la xam nga lu ñuy wax odo gàlle gàlle gàlle amen jeex na waaw lu ma ci des lu ma ci méttee mooy Cheikh Tidiane ak sëñ Babacar bi samay frère dañ ma ëpp chance wala ñu ëpp chance ñun ñëpp ñu bari ci ñun muy Chérif Sidi Ahmed mi toog ak mam Alfahi Mayoro ak seeni mag ak seeni rak dem ba ci lan Ceerno Abdul Qadir li jàngal leen ci ndigalu Alxaaji Abdul Aziz ba ñu tarifa alquran ñun yàlla may ñu chance boobu ndax ci sëriñ wolof yi la ñu jànge waaye ba léegi dama naan dañu war a delluwaat fuuta jàngaat nafaraat waaw ndax yaa fuuta yaa fuuta tiihi wafraxi wastabshiri wala yaa fuuta tiihi wafraxi watabassami id kunti أرضا لولادة الفوطي إذ كنت أرضا لولادة الفوطي يو فوت بغل تتيترول سولا نيخي تداغو نمو لا نيخي ndax yow yow sel si nga xamni ba yalla namme terale qui se suuf si la ko wàcce mu tàmbali fi liggéeyam Fouta yóbbaale Sénégal Sénégal yóbbaale Afrique tout entière ndax mamal El c'est le plus sûr de ceux qui peuvent porter le nom de panafricaniste waaw ndax Afrique foo dem fekk fa de Halwar à Kano au Nigeria en passant par le Mali par Bingiraï en Guinée en passant par beaucoup d'autres pays d'Afrique noire comme doomu Afrique le bu Afrique il nous a montré la voie taal yaa ngi ci ñu yàgg waa ahbaab ak ñun ñii nga xam ne njabootu Cheikh al Omar maam Alxaaji Omar Fuutiyu la ñu ci liggéey bu rafet bii nga xam ni fekk mu ngi demee nii rek Sénégal di war a gën a mën a am yaakaar salaamaaleykum banndiraaɓe julɓe banndiraaɓe fotankoɓe tijjanankoɓe on jaaraama e tawtorede nde min jetti allah min jetti on نسلم على الوفد الذي جاء من المغرب ونزوركم نسلم على ممثل مكتب الدعوة الإسلامية الليبية شرمي شرمي يحيى با شيخ عمر لي محمد الكامل أو أستغفر الله من شرمي دندا الجن والبلو كونفرنس جديد جارام عندك رسالة yaɓɓano waɗa e maɓɓe o mbeɗe sikki en paami hen ko heewi en naftarima ko heen ko heewi en jettiɓe kamɓe fof en ɓiino e moɗon hooɗen yetta organisateur en ɓe ahbab e ravida e garde gon ceerno makki muntaqa e organisé ɗum organisa organisation moƴƴo الحمد لله يلا وكل رتب من نور لا والبنور كفن من هالد على كفر من هالد فتي هالد لو كهدر على هج مالكسي بس بيسين بسنا بس بيس بسين تالي بيسين un Thierno Seydou Nourou seen taalibe la Thierno Seydou Nourou bëggoon na dellusiwaat dëkkam yoon yoon ñoo ko tere dellusiwaat mu nekk Sénégal pur cent pour cent balaa maama donc mbeltinoon feewi yalla rokku en naftorade ko conférence ji ɗi kaali ko yalla un en barke mawɓe ɓe yalla hokku en wurdam moƴƴam un mawɓe ɓe الوكل ود نبي برنو مباير نبي بارو مباير كذا دنيو إن شاء المليون إن شاء هناك خليفة شيخ عمر وشارل بصير إنجوري مو وإلمين مين منفوف إنجوري مو شارل غير صلاة يو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا yow yaay sëriñ bi nga yees la ñun ñëpp ñu nangu ñaan ne amin foog nga def ko ñun ñëpp dañu ñëw pour yees la suñu diggante ak Ceerno sa ah, ak Alaaji Maalik ah balaa loolu nag ah, nga bañu fàtte président de la république tala ali samadun ahsin ma dana nabihi ya rabbi zaydita